aca mbokk internet eh, ba gis nañ ba léegi ñoo ngi si place bi daal Fatou dëgg astu Baye Sox waaye dañ taxaw ak tey sunu yaay namoon nañ la waaye maa leen raw maa ngi nii rek la moo waroon sa teewaay fi ah lu waroon sa teewaay tey li fi waral sama teewaay xale bi day sama doom ma bokk ak moom reçu ñun ñuy liggéey ci aar bi man ak moom ma gis ko muy xale bu baax ma gën koo motiver muy xale bu am jom bu neex a gidee bu neex a waxal nee naa ko mënoon ngaa jóge caajaay kar ko ci almadi beeg boîte de waaye day ñàkk tedd di faj ay soxlaam di ko fajal jaam yi man mii diw gu jeex ay employé ma ngi nii dana leen heure bu ma am ay syndicat jox leen ko diw muy xale bu am jom nag bu nangoo liggéey jiitalu daray mankan kunkan marqué nag empruntam ci réew mi waaw dan naan commentaawun yi waaye commentaawun yee fi tekki waaw. te boo amoon benn conseil mu koy jox xanaa ne ko takkal sa ndigg rek te liggéey te nag kaay ma la benn affaire jaay dara lu bon ndax dafa naqari deret neexu deret du jaay kenn nga xëy suba di wokkatu mbaa nga waga lii man maam ay sa man maa ko wax lu baax la lay jaay te saw yaram du xolleeku di timpi tàmpa nga pare nag ànd ak tere say lu net wër la lu baax la Astu Njaay di jaay ndax daa boole fulla ak fayda ñaq tedd rek lay dunde te lii da koo jàng mélange bi muy def da koo jàng daa dugg diggante Allemagne ak Amérique ak Angleterre dem ba Indonesia dem ba Malaisie jàngi mélange xam li war a bokk mu di ko boole waaw man du ma du ma ngénte doom ju amut baay du ma waxal kenn loo xam ne du dëgg ndax neexuma deret ba léegi ñu ne ma maay sax dafa naqari deret am fulla am fayda moo tax mu neex ma man mi noonu laa mel. mais temps yi concurrence dina bëri de gisee jàkkaat yëpp na gis mel ñoom Mame Ndiaye sama ñoom ñëpp est-ce ma ne Sénégal jàkkay ne la faay taxaw noddu Sénégal jàkkay neen la fu waay taxaw ne allah kubar boo demee marché jaaykatu géej bi ak jaaykatu yéet bee sasoo jaaykatu salade bi ak jaaykatu paañ bi ak jaaykatu netatu bee dend te ku xëy suba yóbbu sa wërsëg waaw Asu Njaay dafa am ay nitam spécial te nitam yooyu spécial man na noo ku mel ne man maama Aïssa maa ko booleeg waa Belgique yi boole koog waa Angleterre boole koog Gambie yu baax yi mu di leen jaay diw te ku ci diw bu subaa nga ne ma maam Aïssa ki kii ay diwam dafa baax. léegi mois ñu wax ci fu mu toll nii ci actualité loo xam ne réew mi tey boo amul benn conseil boo xam ne moom ngay jox jeunesse bi surtout problème Adji Sarr ak gis nañ temps yi yëpp la noo gisee coow la. problème euh, nag vraiment. mënuma cee wax c'est pas mon problème ndax du sama bagage damay wax lu ma leer wax lu ma wóor mag laa maa ngi saal d'attente di xoor xaar yàlla sama domicile la nga ca armeel ya mag laa dootuma dund ci li ma dund ma génn ñu di ma dóor di ma gaañ samay doom di am problème fekkewuma yëguma tiinu ma xam nga xale yi lu ma leen di conseillé nan dem liggéey te bàyyi Macky Sall mi nuy saaga nan dem liggéey gerte caaf gi pël fuutay jaay ak darkase yi nuy jaay ak buy bi xale yi jaay ci autoroute bi ñi ngi ciy tedd kuy liggéey di épargne juróomi dërëm sagañ pee bu yàggee nga tabax nan dem liggéey loolu laay wax senes bi y a pas de sous ci ngeen tey sax nu pare ngay raxas raxasi cin sax nit ñi def nan ko fi ba tekk ci waaw wasalaam loolu laa moon lu may waxanteeg yéen waa wasaare ay jaxase kat ngeen yéen journaliste yi mbokk internet yi ñoo ngi taxawal euh, commerçant bu mag bi muy Zal Shop borom Chine Zal ñu ngi lay waaw ñu ngi lay fay ça va si jàmm waaw cool ñu ngi si jàmm ça va alhamdulilah Chine <laughs> ñu ngi fa ñëw da alors loolu waaw tey li waraloon sama teewaay maa ngi nuyu ñëpp di nuyu ki nga xamante si nii mooy tutu di ko ñaanal jàmm ak xéwal tey nag li waraloon teewaay bi mooy sunu partenaire bi nga xamante si ni mooy tutu eh, tey moom la ñëwaloon fi nga xamante si ni mooy parcelle. Hmm. partenaire bi nu mu demee partenariat waaw partenariat bi nu mu demee nag mooy eh, ñun dañoo nekk ndaw réew mi di liggéey ci li nga xamante si ni mooy réew mi. li liggéey li nga xamante si ni mooy euh, matériel salon yi ak euh, make-up yeeg li nga xamante si ni euh, moo jëm ci wàllum coiffure ak yëpp ñun ñoo koy jaay ñu gis na nag moom day liggéey ci loolu ñi xam ne kii suñ ko jàppalee mu dem ñu nekk ki nga xamante si ni ñoo koy jàppale. liggéey moom est-ce que sax maa ngi ko dégg mu daan an bagage yoo xam ne moo yaa ko jëlee Chine nga indil ko ko. bagage yooyu est am na différence ak yenn bagage yeneen bagage yu jógee yeneen extérieur bi su mel ni Amérique. waaw euh, euh, ñun nag en fait euh, dafa nekk produit yoo xam ne international la ñuy def dañuy indi Amérique indi Chine indi Dubaï ak réew mépp mu mënti doon nañ fay jëlee produit mais suñuy produit li ci gën a neex mooy. dañ lay jaay qualité bu baax euh, livrer la ko installer la ko defal la li nga xamanteni si ni mooy garantie defal la facture loolu moo jafe ci mim réew. lay wax sa client yi. waaw sama client yi nga xamanteni ni euh, dañu bëgg lu mel nii dama leen di conseil ñu gën a góorgóorlu gën a liggéey te xool ci ki nga xamanteni si ni mooy tutu ndax xale bu am jom la bu nangoo liggéey ndax lii jomb ko ndax euh, vraiment ku am fit la ku am la ak fayda la. merci beaucoup. ok bye. Thiam. Anna maa ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay bu baax. nga nekk grande sœur ci Toutou tey muy inauguré bitigam fii ci Parcelles Assainies nga ñëwoon teewlu ko alors ban témoignage nga ñu defal ci Toutou. waaw maa bu baax ci ni ngeen ko taxawoo euh, Toutou témoignage bi ñu mën a am ci moom mooy nit la bu baax xale bu dal xale bu teey xale bu responsable xale bu allah nit la daal. d'accord coow li bari na yi di mu nekk sa rak alors tey ban conseil nga koy jox ci loolu. dara mu dal rek nekk ci yoonam nekk ci liggéey ndax kenn ku nekk ci loo nekk ku ne mu bari coow yow xoolal lu baax lu la mën a jëmloo kanam lu la mën a avancé loo mu nekk ci parce que coow gi ak wax gi. amul solo daal li ëpp solo mooy nga concentré wu ci li ngay liggéey nga def ci fulla def ci fayda seet sa digganteeg yàlla te xam ne produit dafa nekk loo xamante ne si ay yaram lañ koy def te looy def ci yaramu doomu aadama bu yàqoo rek xam nga du baax léegi ñu xool suñu diggante mu xool ci digganteem ak yàlla rek ak doomu aadama yi mu liggéey lu baax mu jëm kanam daal parce que lu baax rek day fay lu baax am prix nakar la da am lu lay metti dangay am bu baax lu la metti mais boo xoolee moom ni muy waxee dangay xam ne nit ku ragal la dafa ragal dafa dal xamul coow bu amee coow rek day perturbé wu xam nga kuy am ay coow muy toog du nelaw di feebar kooku dangay xam ne du nitu ay moom jàmm la xam ak coow ba pare xale bu ragal la dafa ragal macha allah loolu moo tax bu coow amee yow da koy yërëm parce que day def loo xamante ne du jikkoom te xamu ko par rapport ak koo xamante ne tey jii mën na wax mën na waraj waraj yi mën na défendre boppam ci lu bari bu que ne mën na défendre boppam sax mais xamul coow dafa dal. Mhm. maa ngeen leen di fay conseil bi ma koy jox waa mooy ci li mu nekk nii macha allah bu mu ci teggi tànkam na gën a fonk liggéeyam respecté ay client wam euh, jàpp ay waajuram ndaxte lépp waajur la bu la sa ndey ñaanalee ngay tarbiyu leen ndax baasu doomu aadama mooy waajuram suy àdduna bi ko mën a tarbiyu ku dul sa waajur da ngay perte sëgam mi ngi tarbiyu ndayam di ko jur di xool lu baax mu ci teg tànkam macha allah butik bi dañ koy wàññi incha allah rabbi parce que mérité na ko xale bu baax la xale bu am yërmande la xale bu dal la xale bu tey la bëggul alalam ndax alalam da koy jël di ko bokk ak nit ñi moom lu mu yor nga soxla ko mu bàyyi kook yow kon nga xamante ne nit ku baax la kon yàlla dañ koy ñaanal yàlla rek yàlla ñuy compter ay bitik bitik ci barke alxuraan. fa mu bëgg a egg yàlla ko fa yàlla yeggale vraiment. bu yaru xale bu am jom vraiment ba muy soog a doo dama ko fekkee mu nekk si benn appartement nekk si néegam. di def ay diw def ay saabu crème de visage teg ko si néegam clientène bi di ñëw gars yi di ñëw ndànk-ndànk ma ne ko lii de boo gëmee sa bopp di ci génn mu gëm boppam nekk si néeg bi nekk si néeg ba mu xat mu ne ah ma ko demoon ci place boo wutee place rek te mu gëm sa bopp incha allah rabi da ngay tekki yàlla ubbil ko tuuti xewul mu dem west west faar ubbi benn kan benn magasin ne fa di defar ay diw ak saabu ba yàlla indi lii tey mu nekk kenn ci man asos damay may saabu di ma may karité di ma may xaalis baax yëg ma bëgg ma ma koy ñaana yàlla suñu borom rek bitig bi mu ubbi yal na suñu borom yëkkati ko ba mu nekk au niveau international laa koy ñaanal vraiment xale bu baax la bu joxee cër bu yaru bu alalam du ko boole kenn moo tax na tey su ma waxul lii du ma gor du ma jënd diw duma ma jënd saaba sama doom du ko jënd man du ma ko jënd te fu feet fu mu jotee màggal tabaski gaamu tam xarit day yëkkati xaalis di ma may voilà kontaan naa.